بعد أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم ñi fas kéenu joxe darsu téere bi nga xamante ni moo di laxbari yu ñi sof si tuuti si fu njéemoon ak yéen nee na way ci dana war a ali mu kalaf bi xirsu jamee jawaarihim waatu mbooli mi cëram mastataa ci lum attan waa ngi yoxi ba lépp la bëgg lillaahi na nga bëgg ci yàlla tax nga bañ kaay bëggee ngir sa bànneexu bakkan wa yubxida lépp loo xam yaa ngi koy bañ na nga ko bañ lahu te yàlla tax de wa yarda lépp loo xam yaa ngi koy gërëm na nga ko gërëm lahu te yàlla tax de wa yaxdaba lépp loo xam ne yaa ngi koy mer na nga ko mer lahu te yàlla tax wa yaamuru lépp loo xam ne yaa ngi koy digle bil maaruf na nekk lu baax de wa yanha lépp loo xam ne yaa ngi koy tere anil munkar maanaa an karahu cheyu wala yaqtarifu bihi lii yëpp ñu fexe ba moytuñu ko wa yaxramu dana araam alayhi ismu kalaf bi alkasibu fen muskalaf bi war na moytuñu ko li nga xamante ni fen fen mooy loo xamante nga wax lu bokkut ak li nga xamante ni moo am kon loolu fen la waaye nag nit ki mën na wax loo xamante ni fen lañ koy tuddee te fekk loolu araamul ndax bu waxee ni yaakaar yaakaaroon ne la te fekk demeewul nii loola dañ koy jégal moo tax bi ne man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqaaduhu min annaar képp koo xamante ni fenn waral ma te mu tayyi ko kooku dina xam naa am na benn kursi yu maanaam am na benn toogu sa safara te dana su toog kon ñu déggee si am na koo xamante ni kon fen na te taywut ko maanaam xamatoon noonu la demee waaye bu ko waxee kooko dara du ko si fekk kon loolu mooy fen ñu jëm kaay moytunu ko wala xiibatu ak jëw nit nag mën na moytuñu ko fen mooy na moytunu ko sàcc mën na moytunu ko njaalo waaye jëw moom moytu ko dina doy waar lool ndax sahabi yi laaj na yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ko lan mooy jëw mu ne leen zikruka aqaaka bi maa yëkkëra nga wax sa mbokkam jullit loo xamante ni du ko neex ñu ne ko ah su fekkee nag ñun araayta in kaana ma aqulu xaqan li ñuy wax seen mbokkum jullit moomu lu dëgg la yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne leen in kaana ma taqulu fii xaqan faqad xibtahu wa in lam yakun xaqan faqad baxattahu yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne leen donte li ñuy wax si moom fekkee dëgg la yéen a ngi jëw ndax bi ñu koy wax loolu lu amoon la waaye ma adraka anhu lam yatub xamoon ndax loolu bi ñu am jamono bi tuub na wala tuubul te yaa ngi ñoo xamante ni xamuñ ci woon dara kon tey demee ba toog di leen ko nettali naan leen diw saa ñoom ne da kon loolu te xamuñ tuub na am tuubul loolu rek jëw la wala nga wax nit ki na kii mboobu mi tirim na ñett jàppees ne loolu jëw la waaye tim ñu fexe ba naan diw saa ngam te ni may doxee nii ñaaw na nako nako na te déggul lool sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nee na jëw la kon mucc si dana jëfé lool war na may motu ak rambaaj rambaaj moy toxal wax jëlé fi wax yu bu fële ngir jaxas ay nit ñi xol yow tok toog do lool neena da haram wal kibru ak rëylu rëylu niñ ko mën misalé mooy jigéen ñi fi mu ne nii sax loolu am na si jigéen ñi ndax bu jigéen ñi toogee gaa yi ñu nga xamante seen borom kër bu ñëw ñu eh sama borom kër ñëw na sama borom kër ñëw na waaye am na koo xamante ne borom kër bu ñëw fi mu toog laay toog na daj du ko faale maanaam ak lu mu ko bëgg bëgg bëgg bëgg rëyu na dem daje moom naan sama borom kër ñëw na sama borom kër ñëw na wala sax tànkal ko ndox jot mu naan loolu yëpp nag daa xaraam wala oj bi ak yéem jëf yéem jëf maanaam mooy lan mooy dem su guddi wax dëgg yàlla neel woo yaa ngi ko julli yaa ngi jàng yaa ah waaye dem neen ba xëy tey nag sa bëdi xaw a xonq wala ngay nelaw ñu ne la ah yow diw sàngam looy nelaw tey ñu ah man gis nga démb daal dama fanaan si course géej ak ñaan yàlla ak loolu loo ko waxee kon loolu yëm su su bopp la bëgg ko li yëm la waaye loolu jartoon yegga mën ngaa am leen loo wax lu may loolu kon loolu mooy yéem jëf wari yaa ak ngistal ngistal mooy lépp looy def lu baax rek bëgg nga koo gis loolu daa araam wa somaatu ak ndéggatu ñii taxaw di wax nga rom fa bàyyi leen seen benn nopp di bëgg a xam la ñuy wax te loolu kenn dugalu lu sa nee na loolu daa araam wal xasdu ak kañaan kañaan daa xaraam kañaan mooy lan tamani zawali ni amatil xaaya maanaam mébét nga nit ki lu ku yàlla jox maanaam mu ñàkk ko boobu daa araam wala boog nga bëgg a ku yàlla jox mu bàyyi ko si moom ñëw si yow kooku daa araam waaye bi nga xamante ne moom dagan na mooy bi nga xamante ni am na ko yow amoo ko bëgg ngaa am lu mel ni moom muy def muy muy def comme li ngay def nee boobu de araam moo tax waa ji ne wa minu laa xasada ilaa fi isnayni kañaan daal dagan na nara si daganut nara si ñaar yi nii ñu ne ko ban ak ban la mu ne ku demee ni kii yaqumu bihi ana a leyli wa ana a nahaari koo xamante ni yàlla jox na ko alal joo xamante ni mu ngi koy dundalee guddee bëccëg suba ngoon yow bëgg nga def li may def bëgg nga ko waaye amoo ko boba ñee nga ko ñeeti góob de nee na dagan na waaye ñeeti gi nga xamante da ngaa bëgg lim am mu ñàkk ko kookoo ree daa araam wala koo xamante yàlla jox na ko quran mu si jàngale guddi bëccëg suba ngoon li muy def neex na la bëgg nga am lu mel noonu nee na kooku ree araamu wal buxdu ak mbañeel jullit nee na kenn du bañ la bañ waaye jullit kenn waru kaa bañ nee na boo rek ويريد فضل الأقوال بتم جنيل على القاري سكان وصلى الله على سيدنا محمد وسلم يعني يا لما يدق أكتر